asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk jullit yi sénégalais yi maa ngi leen di nuyu kii Coura Macky la di leen ñaanal tey sàkku ci yéen ñaan di ñaanal kilifa diine yeeg yi aada yi tey sàkku ci ñoom ñaan di ñaanal gardien de la constitution ñu ne ko son excellence ma tegal ko ci ne ko your waa lii la yàlla dogal ñëw rekk di leen wax ni macha allah li président Macky Sall jëli woon milliards yi sénégalais yi naaw yàlla na ñu jik ñun sénégalais yi yàlla na ñu jik yàlla na ko sunu doom yi sunu sët yi lekk ci jàmm ba dootuñu jaar ci yoonu géej gi ak yoonu désert bi wala jaww ji toog senegal di ko liggéey plan émergence lañu wax Sénégal nag bëgg naa ngeen bàyyi seen xel ci politique politique bii nii tey tey tey tey tey li war a xew nii muy élection yi def leen ndànk Tunkara daf maa defal vidéo barki démb bandi bee wuyu bi waaye di nga xam ni maa la gën a capable Tunkara ku la man Tunkara ku la dàqa politique ah da wut alal bëgg ma cee dugal sénégalais yi léegi jëli nan la na ko ñëpp dégg nag tas leen ko Sénégal taxu ko jóg nee na day business téye président bi di ko saaga disrespect ni nga yow muusoo simaatoo yow defal ma vidéo saaga ma traité ma cagaag lu la neex wëlbatiku ci dimanche gi xanaa xanaa sénégalais yi xam ngeen ne li may wax man mooy dëgg tunkara feek tunkara moo bon jaam la li ma leen ne jaam la jaam la man man dama dilul ak yow man danga saaga sama président jaam nga tunkara àddina nag atta nañu gis nañu nag yow ban genre nga ak ku mel ni yow sa genre googu noonu fu ne nga di fa daw di fa tapp léegi nag xanaa ñoom bugaan ak ñoom sonko mu doyadi mi xanaa nag léegi ñooñu xam nañ ni yow senegal taxula a xaalis ngay wër ne nga da ngay ñun Sénégal moo ñu tax a jóg tunkara Aku melni yow te iñaan mani Macky Sall jëliwul milliards yi rek France ak Amérique nyude ñu defal ko Sénégal ñu jël ko di bëgg enjoy ci jamm yal na yàlla musal Macky Sall ci bi ak bi ak man wa kay ak Sénégal ak suñu xaaliss bu ñu jëli yal nañ musal ci yeen do len dara opposition bi jaxase rek ngeen di def waaye nag dinaa leen wax leen na xale yu góor yi kenn xeexul jëli leen seen doom yooyu ngeen jiital ko léegi danoo yeewu fii kenn dugg fi nu mu siin xale yu góor yi jël leen seen carte yi am seen fulla am seen fayda mooy xeex bi waaw kay te ngeen xool nag bu baax li Macky Sall def ak ñoom ban fi nekkee juróom-benni at xaw ma juróom-ñaari at lan moo xàppen ah xaalis bi moo taxawut ñu tas ko biir réew mi yaanaa maar am ceeg seen i jot di wa di wengal seen i gémmiñ rappeurs yi dof ku ci nekk di wax ah yéen daal Macky Sall leen jommal parce que yéen sénégalais yi ñu bon ñi miinu leen yu baax yi ñu ñuy defal bañ nañ ko ba ni terrain bi ñu indil ñun dafa lëgsi ci ñun yéen yu baax yooyu ngeen bëggul yi ñuy gis fii yii ñu yéene ko Sénégal yéen bëggu leen ko xaalis bi tas bandi cerveau yi di joxe ay cinq million pour ngeen toppiloon leen leen ngeen di ngeen di dof-dof lu Tunkara ngoogu nag kii mooy Tunkara ak keneen ku ni moom ñoom Sonko fii la ñuy génn ak ñun am na ñu ñuy waxtaanal mais maa leen gën a doon bandi cerveau Tunkara daanu nga dootoo ko defaat wax nga sénégalais yi yow la kan ak lan nga bëgg a def sàcc daanu dugg nga ci politique daanu ndax won nga ni sénégalais yi ne bëggoo Sénégal da ngay business xaalis nga bëgg man diluma ak yow duma sa xarit ki ma bëgg bëggoo ko demal sa yoon bul ma woo Tunkara wax na àddina bi yaa may woo am ñu ko gëmul sa équipe bu ndaw waaye nag xoolal yàlla defal na ma sutura bale ngeen foog ci man amul wax nga ko ci vidéo wax nga ko ci sa audio bi ma la doon enregistré nga ni ma jigéenu ñafekat nga Tunkara Get the hell out of here, negro. You not nobody. You want money. Hey, we fighting for our country. Yow nenga nga nga foo toj. léegi nag nga adina wax nga linga nga point final. salute.